bon man maa ngi tudd El Hadj waaw mun naa ni docteur Alioune silla mun nañ ko tuddee l'homme l'homme social ndax lan l'homme social ndax da doy médecin de formation waaye depuis mu jeexal loolu ba lancé dans la politique euh, homme de homme social la ndax euh, depuis mu mu terminé bien avant sax muy terminé sa carrière euh, professionnelle muy médecin bi mu nekk même médecin bi mu ne bi mu ko nekkee da daan jàppale askan wi di leen dimbali euh, bi mu jeexa bi mu nekkee ci loolu en même temps bu lancé dans la politique tamit di def ay activités sociales moom docteur ku ko gën a xam euh, projet de ay affaire développement lay def ak social loolu man ci laa xamante ak moom gis na mu ciy def lu takku loo xam ne moom mën nañ ko seere te yàlla rek tax euh, mu mel ni lan ñun ci développement la ñuy yëngatu jënd na ci ñun 50 caisses de développement yoo xam ne da koo jox ay jigéenam ñu leen di accompagner le développement le commerce solidaire les formations mu distribuer ko à travers tout le tout Touba et dans le département bi mu paree si loolu tamit damay gis wàllu éducation mu si jàppale école yi CM Kéré mbay da ko si jàppale ak lii lycée Kéré mbay ak yeneen i daara yoo xam ne nekk nañ biir Touba. sur le plan social tamit damay gis bu màggal ñëwee lu mel ni màggalu Kazu Rajab day jàppale njaboot suñu fàllu gi yëpp jàppale tamit yeneen yeneen këru diine yi. màggal sëñ Abdoulaye tamit bu ñëwee même chose màggalu Touba moom bu ñëwee moom kenn waxaale kenn waxaalewu ko moom li mu leen mën si jàppale da leen koy da koy jàppale. loolu moom gis naa ko 40 tonnes ceeb taxaw naa mu séddale ko boole si ay ay xéewal ak ay nag yoo xam ne da koy joxe da koy joxe te màggal yi rek tax loolu moom gis naa si Sylla def ko bu dee euh, koor ñëw na day jënd tàndarma ak suukar ay valeur 7 millions di ko séddale di ko séddale groupement yi mu am ak jigéen ñi nga xam ne moom da leen di da leen di jàppale Euh, su ma ñëwee tamit seetlu naa tamit ay jàkka yoo xam ne bu mel ni Daaru Salaam Guédé ba ñuy tabax seen jàkka ja jàppale na leen gis naa tamit mu def extension électricité euh, marché mak màkkawadd loolu lépp ànd nañ ko su côté bi mu gën a gën a gën a def dooleem nag mooy si adduction doo quartier Daaru Sow Daaru Salaam Sow bii ak saam saam buqatul Mubaarak soxna suñu wax faat seen gis naa mu yóbbul ko fa ndox ba sa jàkka ja quartier Modou Ndiaye su yoonu Daaru Musti bi gis naa mu joxe fa adduction d'eau quartier Daaru Salaam Guédé ak Tindóodi ak quartier Soxna Mbenn ak quartier Baye Mbay Béy yooyu yëpp gis naa mu joxe fa mu joxe fa ay extension ndox yokkal leen ba ñu ba ñu am ndox wutal leen ay ay ay ay raakol ba ñu am ndox euh, quartier Assane Lo tamit yóbbu na fa ay tiwooyu ndox quartier Ngourika quartier Touba Ndigal quartier forage ak quartier Aline Bopp ak daara yi daara yi dindi tamit daral daral dindi bu nga xam ne moom dafay yëngu ndax moom en même temps day def élevage gis naa tamit mu def fa activité yooyu benn village boo xam ne jege na sore naa Touba boo ko 7 kilomètres bu ñuy wax Njogob indil euh, na leen 7 kilomètres ex euh, adduction d'eau tabax fa ñeenti borne fontaine loolu ba ñu ko estimé ko rek matoon na 4 millions waaw docteur Sylla daal bu ma doon wax si moom dama naan c'est au parcours social élogieux. mën naa ne presque ñoom sax boo gisee ñu koy faral di taamu di ko def la seen seen seen seen seen seen parrain d'honneur moom moom moom dafa dafa dafa catalyser dafa dafa dafa généraliser ñëpp moom fi mu ne amul xaar ma yàlla ak benn benn benn benn benn responsable politique ñoom ñëpp la jaxasool autorité administrative yi tamit ñëpp la jaxasool këru diine yi nag moom waxaale wu ma ko. ndax moom boo xamul ne man taalibe taalibe sëñ Sidi laa mu sëñ Abdou te noonu mu jaxasoog moom noonu la jaxasoog yeneen kër diine yi nekk Touba yëpp moom daal c'est un boo xam ne moom gars yi mën nañoo jàpp si moom pour li ñu bëgg muy ànd rassemblement ñu mën ko def ndax ndax moom koo xam ne danaa la man wutuma dara wutuma dara si si responsabilité politique li ma bëgg rek mooy ngeen ngeen am ndam au niveau de Touba kon kooku xam nga ne neex naa neex naa àndal waaw loolu daal laa xam si côté boobu